sama doom entré na hôpital ma fekke benn dee bu ma yim benn xale bu góor buy sukuraat sukuraat bu metti ñu wooma fekk maa ngi ci jàkka ci hôpital Dantec ñu wooma ay waxtu yi ma daw ñëw maa ngi fekk waa ji muy kadd kaddi ma ñëw tiim ko ne kii day dafay sukuraat mais lan lay wax yaay baal ma yaay maa la tooñ yaay sama xol a ngi lakk lii lay wax yaay baal ma yaay maana tooñ yaay sama xol a ngi lakk yaay baal ma yaa ba waa saal bi dañoo daw génn dañoo daw génn benn paax ne ma jàngal ko yaasin ma ne ko fii yaasin munu fi dara yaasin munu fi dara ki ko fa deewoon nekk ak moom daw kooku kan la jabaram la nekkaloon ba mu mettee jabar ji daw na ndeke jabar ji da koo génne këram kër yaayam mu nekk ci kër yaayam jabar ji jékki ba nar caa jaay ndax ko ba génn ko mu luwee ji appartement yaa ji dund waajee yoroon dund yaayam topp jabar ji mujj bàyyi dundal yaayam yaayam dafa mujj day yelwaan ay rakkam yu ndaw moo doon fay seen jàng rakk yi amatuñ ku leen fayal rakk yi nekk ay doxandéem nekk ay orphelin mu dem topp jigéen nekk moom ci appartement su yaayam ñëwee mu saaga ko jànni ko lu ne mu wax ko yaa keroog bi muy dee loolu lay wax ci suñu yaa ji bi muy lay wax ba sedd man mii ko toppatoo defar ko benn fan lañ def avant timis yaayam ñëw ak yenn frère am ay mbokk doomu baay ñooñu ñëw biñ ñëwee ma ni kan mooy yaayam ñu ne yow ma ne diw de da doon wax yaay baal ma yaay jéggal ma yaa jooy jooy yu metti ne woy ñàkk naa ma ne ko meer ñàkkuloo kii li mu def santal yàlla ñàkkuloo ma nettali ko affaire bi mu billahi meer bi dañ ma ni oustaz daa yàlla de ko baal billahi loolu la ko wax xoolal li mu def yaayam ak li ko yaayam foo wax oustaz wax kii yàlla dina ko baal ma ne ko bu ko jéggale yàlla mu du ko jég wallahi loolu la wax ustaas sax kii yàlla dina ko baal yaayam gisatul lam ko def mais àjjana la ko yéene léegi àjjana la ko yéene ustaas ndax kii yàlla dina ko baal ma ne ko boo ko baalee amal na yàlla baal ko mu ne ustaas kii lépp lu ñuy def nit ci lu bon sama doom ji def na ko waaye jabaram moo ko def loo jabaram moo ko def loo jabaram moo dox suma digganteeg sama doom ba tey sama doom entre di dee yëguma ko sama doom entre di dee yëguma ko naa tey mbokk yi yaay ni mu mel yaay ni mu sonnee ci yow yaay li ko dal ci yow ay medit yonent bi ne ala unabbiukum bi akbari alkabair qulna bala ya rasul allah qala al ishraku billah وحقوق الوالدين فكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور كاين ما وخلين بكار بكنري صحابين ينتبه بكار بوب برلا بن بكار موي بكنري ينتبه لي الإشراك بالله بكال يالله موي بكار بكنري ينغاق بن من حقوق الوالدين suufeel yaay toroxal yaay suufeel baay toroxal baay ba ci yàgg yonent bi wa kaana muttakian fa jalas mu jóg toog wa qaal ala wa qawli zuur ginnaaw bokkaale toroxal yaay baay moo gën a bon waaye wax caaxaan di comédie ak di déglu musique wala di tëgg mooy wa shahadatu zuur sahaaba yi فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت yonent bi dañul di wax lii di ko wax di ko baamu ba sahaaba yi ne aka neexoon yonent bi nopp mbokk yi borom bi ne wabudu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaaleeg dara wa bil walidayni ihsana mbokk yi suñu réew fan la jëm lebal say wayjur moom lañ lay fay ngalla moytul sa yaay jooy yaay kenn du ko jooyloo moo la ëmb juróom-ñeenti weer wasin xawa dee amatul jàmm amul salaam su nit ñi nelaw du nelaw yaay kenn du jël kàddoom ne ma xalaat déedéet waxu yaay def la ngalawaay bul am jabar yëkkati ko teg ko ci sa yaay kañ nga fi am jabar amagul vingt ans nga nar koo yëkkati noonu maire bi dafa soof quoi gis nga sëyi tubaab yi xew yi moo tas Afrique de moo tax Afrique suñuy yaay yi dañuy nekk suñu yaay yilif ñu yilif suñuy jabar sa jabar bu ñëwee ci kër gi nangul sa yaay yilif ko du jabar jigéen day nangu sa yaay yilif ko ki nekk sa yaay yilif la nga indi jabar mu bëgg naan mère bi daa bëri problème sama wayjur sa fukki xel xalaatul nga ñëw di ma kalaame sama yaay wala sama papa ah non duma la ko may parce que da nga bàyyi papa bàyyi yaay sama papa ak sa yaay sama yaay nga ñëw di ma discuter naan na mère bi lii la ma wax ah non bu yeboon ak ñu ne dama exagéré exagéré wu ma waaye wayjur du fowukaay jigéen bu baax bu ñëwee dafa war a fexe sax sa yaay nga jubook sa yaay loolu a mais ban problème ah xam nga ñàkk teggin weesuwul maire bi sëy na sëyam ba mu jeex bëgg sëy sa mu sëy loolu du saaga nga taxaw ak sa jëkkër di ko wax loolu mu taxaw jël la seetaan loolu du saaga mu naan la sa yaay sëy na sëy bi ba mu pare yaa boole puy yoo yal nañ ci yàlla musal loolu ban jigéen moo war a osé di ko wax góor gu ñu koy wax nga taxaw di ko déglu commencé naa non maire bi la maire bi moo tooñ la ilaha illa ah boobu tribunal naqar naa atte kan la ñuy atte sa jabar ak sa yaay yaa bon yaa tuuti yaa sew loolu kenn waru ko naw jigéen bu juum da koy delloo hee yemal bis dana ñëw da nga nekk yaay te gis nga ni nga jàppee sa yaay mooy tax sa jabar jàppee ko noonu de bu sa jabar gisee foo wax ak maire bi miccitu wala nga kii maire bi dafa bëri problème ah, maire bi dépense bi ñu la war tool sa yoon nekku ci moom moo war a jox bis boo koy wax sa yaay sa kanamu jabar ëllëg nga mu ñëw nga ñëw sa jabar ne la sa yaay laa joteel mais bu sa yaay waxee nga ni tekk noppi waaw soxna si du am xel ñaar ñëw di la kalaame ak sa yaay déedéet yaay du moroom yaay sang la baay du moroom yaay ak baay ci la ñuy ut àjjana kon na nga ko respecté soxna si nag jox ko bépp cër waaye lu mel ni li nga jox sa wayjur loolu la lay delloo ni nga mel ci sa wayjur noonu la lay delloo waaye ñëw ci kër gi yàggul naan la nañu uti appartement mère bi daa bëri problème commencé na laa tàqaleeg sa yaay de te billaahi bu la tàqaleeg sa yaay bi si ngi ñëw danañ la delloo nga am gàcc gis nga jigéen ñi ku ci ànd ak yow boo feebaree dañuy woo yaay ji mu ñëw de woo sa yaay la ñuy def xam nañu ma munoo feebar ba ñu di la kuus ak di la wëlbati dalay lay teg fii uti keneen sa yaay moo la nangul lépp nangulal sa yaay boo mënee nekk ak man ak sama yaay bu sama yaay gaañoo ma am sama kër ñu ànd dem dinaa am sama kër sax mais sama yaay bu nangul ma dem du ma dem woo nañ ma ci benn kër waa ji ne ma tabax naa sama kër ba mu pare waaw bëgg naa faa dem mais parents yi nangul loo may digal ma ne ko toogal ndaw si ma ne ko bul dem du am nga sa kër mu naa ma ne ko kër gi sa kër papa la naa ma na ko yaatu na lool da nga fi am problème mu ne noo aw fi benn problème mais soxla si moo buggoon ñu dem daal pour dund suñu dund ma ne ko da nax seen dund dund leen ko fii bis bu paa bi génne àdduna wala maire bi kër gi sa kër la bu sa papa gaañoo sa yaay gaañu yaa moom kër gi dolli ko ci sa kër bële wala booy dem naxanteel ak ñoom ba nu nangu dafa am ci parents yi nag ñu dëgër ci xeet yi la am na xeet yoo xam ne nanguwuñ ko nangul ku nangu rek da nga diriger incha allah rabbi waaye bis boo bañee lii bis dana ñëw nga am ay doom ñu bañ. kon gis nga loolu nañ ko bàyyi xel bul jànni yaay bul jànni papa wa qul lahuma qawlan karima borom bi nee na wax fid suufeelal lahuma ñeen leen janaaxa zulli mbaggu toroxtaange mbaggam toroxtaange sëggal sa papa buy wax ak yow sëggal ba jeex. sa yaay buy wax ak yow sëggal ba jeex waysul qarani lu mu am rek respecté wayjur moo ko ko may kon yonent bi dafa ñëw digal ñu fonk suñuy way way wayjur dañu koy fonk or la ne waxfid lahuma janaaha zulli na nga leen wàcceel mbaggum toroxtaange min rahmati moo yërmande tey yaa am kàttan ñoom ñoo néew doole yërëm leen boo waree ànd ak sa papa bul waaxu jiitu ko andal ak mom dank dal tay pa bi dem na ba war a dem IPRES ngay and ak mom so pa bi dafa yex quoi ndeysaan démb yaa yéexoon de wala de demb da nga yex pa bi yenu la demb da nga yex mer bi bot la demb da nga yex di tepp ci kaw mer bi di tojal ci yere mer bi di ko saw di ko def lu ne mer bi bolé ko contane tay ngay and ak pa bi dem ipref mënti de no pa waay gawal way kene de du doxalee aduna jarul yakamti dalal da ngay ñaan yalla fi nga ag fi mu ag da nga fi ag mom la sa papa ñaan kon dalal motax mu ne wakal, waxal bo julle ba pare bala nga ñaanal kenn ñaanal say wayjur bu ñuy dund wala ñu def ñom ngay ñeek a ñaanal mu ne waxul waxal rabbi ay sama borom irhamhuma yal na nga yeeram sama ndey sama bay kama rabbayaani saghira comme nañu ma yeeramé won yarma ma nek xalé yal na nga leen yeeramé non